job yëmbal Siteu bu ngor ngor wax naa ko xale bi bu joge ngor almari tarawo ñëppay juk viras mbokki xale bo mo de gën a yëmbal gi Siteu bu ngor boy job arbi sifle na mbokki tay fi fii national mbokki 20h 48 vingt heures quarante minutes lañ sifflé grand combat bi ñaari xale yi seen ciow bari won na ci ndek gaay ci garam palaas yi waaye tay la tay bisub le 19 mai fii ci arène nationale Fallou Ndiaye woo ñu fi boo jóob si doomu ngor ñoom ñaar jàppante nañ xeex dóoral ma dóor luy xew dóoral ma dóor dóoral ma dóor boo jóob si doomu ngor Diop daan na ko Boy Diop daan na ko laa ilaa Boy Diop daan na ko da ko ëpp doole da ko ëpp doole doole doole da ko ëpp doole doole da ko ëpp doole da ko ëpp doole bu doole laa ilaa bu doole ay Boy Diop fu mu a xale yi onze combats onze victoires fu mu a xale yi ay Boy Diop Boy Diop fu mu a xale yi victoire <laughs> man de jommi naa 11 combats 11 victoires.